chaîne YouTube Asrar uridu ila lislaaha mastatantu wa ma illa billah tey nag li ma leen bëgg a jàngal mooy wàllum noob noob koo xamante nii ci diggante ñaar ñii sëy ci lay dox képp koo xamante ni yaa ngi sëy ak sa borom kër te ngeen am ay jafe-jafe ngeen bëgg a juboo juboo goo xamante ni képp ku ko def daal noob gi ne li ko composé benn ay alxuraan la ak ñàppantaan ak nit ki bëgg a juboo ak boroom këram ak njàppitam soo jàpp dañ koy tiimale fen soo palee loolu ngay jël ndox moomu ngay jël def ko benn ay alxuraan bi ngay bind jël ñàppantaan mi lakk ko ba mu xam waaye nag day àndaale say we dangay ngay daggaale sa wey yëpp da ngay dagg sa wey yëpp sa wey loxo ak sa wey tànk su ko defee bu la neexee sax nga wat sa yenn parti karaw yi nga wat ci tuuti tuuti boole koog moom lakk ko boole koog ñàppantaani lakk ko ba mu xam ba def dóom nga jël ko nga def ko ca biir saafara sax saafara si nag ndox mi nga koy siime mooy sa jàpp benn benn bi nga jàppoon tiimale ko fenn loolu boo jàpp ci benn ba pare da nga koy jël teg ko fee bind aay bi ma lay bëgg ko jox ñetti yoon kese nga koy bind jël aay bi xooje ko ndox mooma jël sa wey ak sa parti yi nga xamne amna karaw nga ben bu da nga dagg ci tut lu mu baxna baax ko sa weyi ak ñapantan yi lak ko bam def dom ba xam nga jël ko def ko ci bitel mu nekk ndox bu de yow jigen nga ya ko def wala yow goor gi ñaari couple dal amuñu jamm ta nga bëgg jamm am ci couple bobu defal li fexel ba buy lek wala muy nan wala muy dara fexel ba la tokkal ci tuuti rek mu dugg ci gémmiñ ben tok lum ndaw na bu ci dugg rek jeex lum tutur tuut bu ci xasee dugg insha allah képp koo xam dal yaangi seek sa borom keur wala yaangi seek sa jabar te la nga bëgg ci mom amoko secret bi yaak ko kon ngeen ñu ci tableau bi ñu leen ban ay ngeen kay bolel ka hubbil laahi wallazina amanu no bu doy doy la nag kooku de moom pare na loo ko mën a wax ci àdduna mu def ak lu mu mën doon ndax dafa am jigéen ñoo xam dañuy sëy waaye dañoo sonn lool seen biir néegu sëy yi am góor ñoo xam dañuy sëy tamit dañoo sonn lool seen biir néegu sëy yi ko defee ñoom yaay kenn képp ku ci am jafe-jafe rek yow yaa koy jëfandikoo asaddu xubban lillaahi ka xubbil

dañ koy bind ñetti yoon su ko defee ba pare nga boole ko sa wéyee nga dagg yépp yu loxo yi ak yu tànk yi ak yenn parti yi nga am ci karaw nga dagg ko tamit boole ko ñàppantaan soo paree ñàppantaan ñi ko xamul jaaykat garab yi dañ ko am koo ci ne jaame ñàppantaan dañ la ko jaay yaakaar naa sax ñàppantaan moom jigéen ñi xam nañ ko bu baax a baax su ko defee nga jël ndox mi nga doon jàppee benn benn ci ngay xooje saafara si nga bind ci kayit wi soo ko xoojee def ko fexe ba boole ko euh, ñàppantaan maag euh, xobi si euh, ñàppantaan maag sa wéyeeg sa karaw yeeg yëpp nga lakk ko ba mu def du nga def ko ci saafara bi fexe ba sa borom kër naan ci wala sa soxna naan ci insha allahu dana la na ñàpp te dootu la bàyyeeti te yéen ñaar seen diggante dootu amati benn jafe-jafe bu soob yàlla kon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu